leen di jaajëfal bu baax naam xam xar kanam bi ñu tiim wala ñu jàkkaarloo moom miin ngeen ko muy Serigne moor macha allah ñu di ko nuyu fekk ko fii ci Malika fas yéene waxtaan ak moom lu bare bare bare ci wàllu làmb ndax ku ne xam na ne fi mu toll nii nag daa ñëw ci beneen faset ndax dimanche bi passé wala bële passé indi na Boy Diop yëkkati ay kàddu yu bare bare bare dóor ko dégg nañ sax dégg na voyagé woon na fan yi yooyu yëpp dinañ ci waxtaan mais ginnaaw sëñ bi dañ nuyu bu baax di la bu baax a baax Baye maa lay fay ginnaaw ba sant yàlla ju seen bi sant suñu a waajur di sant suñu yaakaar àdduna ak alaaxira mi sëñ Babacar Si di ñaan yàlla yàlla yokk leeram tan si barkeem di nuyu waa Sénégal ñëpp di bal ñëpp di bal ak ñëpp di nuyu waa Parcelles Assainies 1 bu 26 suma quartier Dégo Unité 7 fi ma juddoo màggee fa ba yàlla dugal tey ma Malika Maka ñoo di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal bisam bi yàlla dafa ko siiw di ñaanal doom ji fi tuuti si tey yàlla ma ko gudd fan yàlla ne ko wér yàlla sàmm ko aar ko ba ñëwaat fi di ko muur muy sëy bu soob yàlla. Mhm. noo dundee làmb ba fan yi. làmb macha allah mi ngi neex de. Mhm. maa ko dund naa sa wax ngi neex trop dëgg yàlla. Mhm. Euh, ku ne xam na ne fi mu toll nii nag da dañu jëm ci bis bu rëy bu mag boo xamante ne yaakaar naa ni képp kuy amateuru làmb yaa ngi koy xaar muy le mois de novembre combat bi dox ci diggante Modou Lo ak Siteu mu nekk combat royal komba boobu moom kenn du la laaj ban position nga ku xam na ni yàgg ngaa ñaanal Modou Xarañ loolu mais lan ngeen waajee. waaw di waaj rek comme ni ñu waajee rek ñaan yàlla yóbbu ñu si 30 la mois de juillet ak jàmm ñu ñaan mu jaar fi jaar rek ndax Siteu li may wax si moom rek dégg nañu ay yu bëree bëri mais du ma mën a wax si moom lu bëri ma mën a lu bëri mooy DG ak capo Siteu bu muy bëri laata gi yaram fam dox suñu diggante ñaan ñu ñaan Siteu te yàlla dogal ñu war a jëflante. dina raw di waat que incha hmm. Hmm. léegi boo doon ñaanal Siteu mu Modou bu bu combat bi taxawee ma yaakaar da xool fi xaalis bi gën a bëree nga far foofu wala du la laa faral ah. waaw loolu yàlla dogal ndax man doom parcelle la te mu la moo dee sama xol ma bëgg ko rek tax ku mënti bëree si kaw su moom laa dal loolu la yàlla dogal waaw. faral ko wala ànd ak Modou di ko ñaan. dañoo Modou dégg fi mu toll nii xam nañ ni Modou moom lu jëm ci wàllu ñaan moom moom gisatuñ ko moom. waaw dañoo ànd ak moom faral ko ànd ak moom bëgg ko daal tax ànd ak moom di ko ñaanal ñett yooyu yëpp taxaw nañ ko si moom man ñaan ku ma xam si làmb moom xam ne yàgg naa wax takkaay ak yenn aar la taxul mbër am ndam taxul mbër ñàkk ndam. Sénégal nag boo koy ñaan fii ko joxoo ko mu takk wala joxoo mu naan wala xelam du dal mais yooyu aar rek bàyyi yooyu dara. ñi ngay ñaanal nga ñaanal Boy Diop sotti ko meew mi jox ko takk loo ko di ñaanal Modou loo ne non looloo ay aar. waaw ñoom ñoo bëgg loolu rek man bàyyi mën naa ñaanal nit ba mu sotti dama jox nga sama dama jox nga takk lépp mën naa ko def si kurus ak mën naa see mën naa see daan ko suuf. Modou Lo nag ak ñoom ñun benn Modou Lo moo yu bari yi tey moo fi indi valise ba ñëpp jël ko si mu dem ba parce que xar day wees mbote te Modou Lo nag kilifa la islam dépassé na fi di tax taxaw yu bari yooyu Modou Lo kilifa nekk ci n'importe islam def nañ ko. kilifa lan la jotee ak ku nekk lu yàlla def si yow Modou Lo daa am lu yàlla suñu borom mu ñëw contre Ama ak façon bu mu am ndam ñëw contre Boy Niang bu mu am ndam te bii mooy gën a doy waar incha allah waaw. Modou Lo moom dama bëgg ñuy wax si moom roi gi pour ñu noppalu ko roi da koy bàyyi wala incha allah yàlla seet na loolu roi des arènes Modou Lo daf koy bàyyi ak làmb. pour nit ñi noppalu moo tax foo demee Aziz Ndiaye moom borom gis-gis bu sori la xam na ne mu la doy bàyyi ak roi des mu dem wuti benn kii kuréel bu mu créé teg ko c'est normal na nga ko nangu ñooñu mu yaakaar amuñu ko mën a daal Modou Lo amu kuréel bi incha allah war a Modou Lo allah. non xam nga booy wax si day yomb mu laax kuréel bi di roi des mu la yor ko. da koy bàyyi wala ak làmm soob yàlla loolu moo sikk yàlla xam na ko loolu koy na sa xel dal ku doon doon des rek mu ne daf koy bàyyi wala ak làmm incha allah bàyyi ko mën nañ ko te maîtrise nañ ko xanaa lu ñu si bëgg def sa yàlla na nga xaaral sama retour incha allah am na solo sa diggante ak fi ñu la fekk di teewaay bi. waaw seen si xarit la suma soppe la. ñuy wax ñu bokk ay teen ñoo lax soo ay goj ñoo bokk métier bi boo ñu fekkee kër Modou Lo ñoo fay daje bu nekkul kër Modou Lo dañuy déggante téléphone dañuy di diggante démb rek maa ngi foon moom mi day ñëw sama kër kon jàddante soo amee bis ma bàyyi lépp lu ko entre nit ak nit ñu comme ñëpp ñu fi daje rek loolu la rek mais du dara waaw suma xarit la suma soppe la di ko ñaal jàmm di ko ñaal bis bi réussite am réussite totale. Mhm. maa lay bu baax. dëkk bi du nuyu nag ñoom 5 tonnes ci bitik nabi di la ziare wu yow yaa ma jëkk a njëkk jox micro si ko suuf loolu nag foofu nit di ko xam parce ku dul wax lu la doomu adama defal ku dul sant nit doo sant yàlla te te lu ma mel si làmm wala su ma nee ànd xam ma c'est grâce à yow loolu nag foofu doomu xam ko ñoo xam ne maa yow nekkul làmm mooñ boole wala micro moo ñu boole dañuy déggante dañuy demlante dañuy diggante ñoo bokk ndey ñoo bokk baa ñoo bokk lépp amul lu may dugg wala lu raar te doo ko yëg amul looy dugg te duñ ko yëg kon doomu adama yi nga ko xamee ne yow su ma nit nga su ma nga noo ko doomu adama xamee ne parce que man su ma jàppee duma bàyyi ciment la te ba ñun laay tooy di ziar 5 tonnes di ziar nabi moom ñi ku baax la ñoo bokk dëkk Malika ñaawlu si dara dara dara dara daf may jàppale su ma amee bis da si sonn di sonn sama yite di sama lépp maa ko seet moom di ko bu baax a baax ate baay jàmm du ñuy sa caméraman yi jërëjëf wala am nga ah, jàpp ngay def kay doo waaw soo jàpp am nga soo jàppee bara nga lal si ziar ah da ngay la xam di xam man <laughs> waa ci nga ma waxal. ñu ñëw lay seetaan de. ah non xam nga yooyu du débat bi mais yàlla. xam nga débat man mi ma maa ku ma toogal dama kay laaj. fonk lislaam nga tànn si benn yow ma ne la li xam la déglu ba xam la seen tong mën na li xamul mënul li xam. astaghfirullah astaghfirullah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah mhm. la salaat aliyah la salaat aliyah la falaat xad xaam salaat allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah

kebaa Kanté maa ngi koy sant bu baax di ko jox wàcc waaye di ko xaar tabaski di wax vraiment li def ni lu am solo la ci ci ji mm-hmm. ndax di nga ñëw posé ma question li xaamloo ma mënoon naa ko bañ a def sax mais xëy na am na ñoo xam ko ndax dañ 55 tonnes kii ca mais li ma nga jàngal ma ko xam nga nit moom boo julli Faatiha ko saar lañu wax yow sama nit nga li xaamloo ma la mm-hmm. daa bëgg nga tarel ma xul yaa ayyuhal kaafiroon laa abudu maa tax bu loolu rek laa bëgg nga tarel ma waaw loolu moom vraiment man maa la laaj de d'accord xam nga bi ma ko traité da nga ma incité forcé. man maa man émission la émission man maay dirigé moo tax. yow rek lay bëggee kooku yaa ngi dégg mhm. li may wax mooy mhm. li problème bi mooy da nga maa posé question xam nuru ma ko woon def yàlla xam na loolu. mais mais émission la waaw d'accord émission may laajte. waaw da nga may déglu xam nga li gën a neex mooy. yow doomu jullit nga te nee nga taalibi Cheikh Modou Kara nga ah. te Cheikh Modou Kara sa su dañoo ay exemplaire hmm. man mënunoo bañal liqaam su ma ko defutoon après lay wax 5 tonnes mënu ko ñi ko saat ne 5 tonnes mënu ko mais dama la ñaan li laa wërsul nga jëm Cheikh Modou Kara Mbacke mi yor am nak alaxira nga taril ma qul yaa kaafiruun laahu nanga la ah nanga la beneen yoon non dama laa tariloo qul yaa kaafiruun nanga nanga la beneen yoon waaw taram in ahtaynaakal moo gën a gàtt ah, moo si gën a gàtt taril ma ko baaw tariloo li xaas moo gën a gàtt xul yàlla kaafiru tari baamul wax lixlaas moo gën a gàtt alxuraan kay inaa tey naakal moo si gën a gàtt ah, lixlaas moo gën a gàtt di sawaay mun nga ma tari xul yàlla kaafiroon wala mënu ma ko tari mënu ma ko waaw ah, vraiment naa feq nga xam nga tamit li ngay def ni baaxul liste yow yaa ngi may laaj loo xam ne même su ma si jaxasee ci la xam nga xamoo ko